waxtaanee eh, tey nag eh, maanaam kan la ñuy waxtaanee tey. gan gu mag. waaw. doomu Tëngéej. mooy kan. mooy eh, ki nga xam ne il a beaucoup fait pour Rufisque. ndeysaan il a beaucoup fait pour son pays. Hmm. Ah, ñu tey ñu war ko rek waxtaanee koo xam ne il a il s'est battu. Hmm. pendant toute sa vie pour son pays et la ville de Rufisque. plus particulièrement dans le milieu politique et mmh. sportif. Mmh. voilà il s'agit de monsieur Mamadou Kora Fall. Alaaji Kora Fall. voilà xam naa kooku ay ñoom tuuti yooyu. waruñu ko xam Alaaji Kora Fall. voilà mi ngi noonu. Euh, mmh. muy euh, Marama. koo xam ne xam lañ koy dàkkantal. borom turandoor yu bëri. maa la ko wax ba mbaar mi ay turandooram ñu ngi fay doxantu. ba sangal kam ay turandooram ñu ngi fay doxantu. fu ne. et donc ay turandoom ñu ngi fay doxal. macha allah mu doon koo xam ne euh, vraiment euh, ci jëfam mhm. am mu doon koo xam ne kenn du ko fàtteti mu ngi sax ci xolu sénégalais yi mi ngi sax si xolu réew mi yëpp il a été le première maire de la commune d' arrondissement de Rufisque Ouest. Mhm. il s'agit de Mamadou Kora Fall comme je mhm. viens de vous le dire. Euh, mu doon ko xam ne c' est un grand monsieur. kenn du ko fàtteeti ci àddina voilà ba cëgam googu tamit kenn du ko fàtteeti keroog ba ñu toogee ba ngoon jot rek daal di ko labat. daal di ko gàddu daal di ko yóbbu cimetière jokkul keroog te ngéej gépp sëngéem nañu mhm. voilà ñu koy ñaanal fa mu ne yal na ko yàlla yërëm xaare ko àjjana mhm. ah, mu doon maire boobu ma lay wax te 1984 à 1987 il a aussi donné toute sa vie au saltigué ah saltigué de Rufisque da daan toog chaque mois daana génn lu ëpp un million pour saltigué pour la bonne marche de cette équipe voilà qui était aussi vainqueur de la coupe du Sénégal voilà président euh, du saltigué pendant 40 ans. Mm-hmm. waaw donc mën naa ne léppam daf ko def rek ci tëngéej. Mm-hmm. muy ci politique bi muy ci saltigué muy ci mm-hmm. lépp ah, yàlla def nag que mébétam xëñ na euh, li mu ci bëggoon euh, ci ginnaawam lay door a am. waaye yàlla na ko fekk lépp rek ci suuf mu doon un grand monsieur. boo xam ne ñu ngi koy ñaanal suuf sedd ci kawam bu baax mu doon koo xam ne tey jii bàyyi na fi loo xam ne. àddina bi yëpp ñu ngi koy euh, waxtaane du deñ ci kenn ah. mm-hmm. Corafal du dañ ci kenn ci social. macha du deñ ci kenn ci ci euh, euh, sport bi. Mm-hmm. du dañ aussi si kenn ci politique bi nga xam ne. Mm-hmm. marqué na fi ay empreinte am fii ci réew mi. voilà ku ci nekk rek loo mën a wax ci moom rek. tey ji loolu laa leen indiloon ci moom. mbokk yéen tamit mun ngeen def 78 208 21 21 def 78 208 21 21 tey ñuy waxtaanee ku màgg ñuy waxtaanee koo xam ne. social. tarkalla macha allah dañ ko miinoon si moom ah, mhm. balaa nga kaa xam dugal fi nga xamante ni mooy jokkul mhm. soo laajtee ki nga xam moom mooy alaaji Kora Fall ñu wax la kooku mooy kan mhm. soo duggee fi nga xamante ni moom moom mooy joor ga xam ne moom mooy alaaji Kora Fall soo demee ba barñi xam nañ bu baax ki nga xam ne moom mooy alaaji Kora Fall muy koo xam ne social rek la xam yow tamit nga miin ko nga xam ko ndax bokk ngeen liggéey ensemble waaw uh, inna lillahi wa inna rajiun nit si yàlla la jógee si yàlla la ñuy dellu waaye sunu papa boobu Mamadou Kora Fall mi ngi juddu le mars. yàlla dogal en mu nekk maire u Tëngéej. le 21 octobre 1900 2021. c'est le liggéey. mi ngi amoon. quatre-vingt-quatre ans mm-hmm. Kora nekk na président jeune chambre économique Kora mm-hmm. nekk na sénateur mm-hmm. parmi les premiers sénateurs du Sénégal Kora nekk na président association saltige comme ni nga ko waxee Kora Fall nekk na euh, nu mu tuddee patriarche Mhm. nekk na chef d'entreprise. Mhm. liggéey na ak ñi nga xamante ne les les Russes. Mhm. Asler mujjee sponsorisé saltige. ba jënd leen ay car mu indi apport bu bëri. Cora Fall daa ko doon oowee Anderson. Cora Anderson Fall waaw. Cora ko oowee Biram Biram Ndaw Anta Fall. muy maamam. Kora Fall daa loxo sa poos. Mhm, da ci daa ko waxoon mën a ëppi nag du maye lu bëri de day sëq rek maye. Mhm. ndeysaan ndax am na xale yi nga xam ne bu doon ñibbi fii lay jaar si talu coxo bi. Mhm, bu ay partie de minuit lañ koy xaar. borom attaayeex yooyu. fu mu romb rek. eh borom mën na Anta Fall. eh Anderson mu gaare tibb rek jox leen. waaw Kora Fall yóbbu na ay nit màkk. Kora mooy borom nag yi nga xam amul benn jàkk bu nekk si tënge gii sa la ma xam département tëngëj te Kora Fall yóbbu fa nag si si tam xarit mm-hmm. Kora defal na fayal na courant ay nit mm-hmm. fayal na location ay nit mm-hmm. fajal na nit hôpital jox na këram bu yeewoo suba ñi ñaa ngi rang yor seen soo nga romba ku si nekk mu jox la dara nga dem marché ndugg yóbbu sa njaboot Kora Fall dagg nañ nit ay courant ñu ñëw mu faj ko. dagg nañ nit ndox mu ñëw mu faj ko. Kora mhm. def na approche. Mhm. si su Mbargaan taama fu nekkee fii. Mhm. hôpital dispensaire su Mbargaan. indi fa ay médicament indi fa lu ne. Kora def na aide aide ay yére si ay daara. Kora Fall yóbbu na si ay nit ay mag. Mhm. Kora mooy nit ku baax yàlla na ko yàlla yërëm. xare ko àjjana amiin na nit bi nga xamante ne nii du jàpp mer. te il a pour le set mhm. mhm. ndax dem na bay jamono balaa muy wàcc liggéey Alioune Mar moo ko abaloon mairie ba salle de délibération bi. fa la doon defee réunion stratégique chaque fois dama doon o si foo ne monsieur le maire mun mu ne kaay assister réunion syndicat dinaa ko assisté deux wala trois fois. te bu ñëwee ñu ngi wax situation saltige mhm. bien vrai que demoon na ba moyen mi sottul loon mais il fallait que mu dem demer na ñëw jàppale nit ñi. Kora Fall may na ay terrain. Kora mhm. Fall may na ay bourse Kora mhm. Fall may joxe na ngalax bu mu mën. wallaahi xaru tabaski nag. ay camion camion lañ doon gaare PC fi mu nekkoon fi mhm, di ko jagg di joxe ci këri suuf Kora Fall it euh, nekkoon na tam koo xam ne euh, mhm. macha allah daan nañ saisir xam nga temps bu jëkk ba saisir moo amoon mhm. saisir euh, nga doon père de de kii famille àddina dox ba dab la ñu jékki-jékki saisir sa kër da koy jënd si suuf mayaat la ko ndeysaan waaw loolu yëpp ñun tamit témoigné nañ ko ci waaw loolu yal ko fa lépp fekk loolu dégg nañ ko fi déggaat ki fi déggaat ki fi ndax am na ñu bëri xam na dañuy hypothéquer seen kër as seen i bien mhm. ñu dem ko mu dem dox ko dem seeti commissaire priseur bi mhm. waxtaan ak moom ba compenser banque ba wala kii jëlaat kër gi delloo la mhm, ci suuf ci sutura yaakaar naa ne Kora jëf ju si àdduna yàlla na ko fa lépp fekk si lu baax yàlla doon yërmandeem foofu ku social amoon na amoon na kër Tëngéej ak njaboot amoon na kër Dakar. Mhm, dëgg la. Kora joxe ba dem ba amatul muy leb di joxe. Mhm. kon kooku wàcc na nit ñi. Mhm. di di mbokk ñëpp nag. fépp la bokk. ndax si yax bu rëy la bokk. si yax bu set la bokk. te Kora kooku war nañ ko tuddee dara Tëngéej. amu ko fi ba léegi amu ko fi dañ ko war a tuddee tali. Mhm. wala ñu tuddee ko leneen. waaye waaye am na cité boo xam ne moom lañ ko. non mais kii cité cité Cora Fall waaw cité Cora moom moo ko defar. mais mhm. fii ñun aussi tuddee nañ ko dispensaire. Mhm. bi nekk fële euh, bi nekk fële moom lañ ko tuddee. Euh, Rufisque Ouest tuddee nañ ko. dispensaire bi nekk euh, cité nu mu tudd sax. c'est de sëñ Mansour. Mhm. Kora la tudd. wallaay wallaay ñu ne ñu ne il s'en est dans la nuit du mardi. Mhm. Mhm. au mercredi. de euh, des suites d'une courte maladie. donc mu doon loo xam ne mi ngi nekk ci xolu nit ñi. muy guddig mardi googu ñu xëy. mercredi ñëpp yëgandoo ko. mu doon loo xam ne macha allah ñëpp ñëpp la. xam nga moom dafa amoon jabet. ba ñu imputé woon tànkam. mais tere ko woon. mi ngi doon def ay activités muy liggéey di def di wax ne nit. warta feebar rek toog mhm. dafa war man courage man bàyyi la si man courage jàngal na ma lu bëri si àdduna wallaay na ko yàlla yàlla ko yàlla yërëm xara ko yàlla yërëm alors donc monsieur le maire yow xam nga bu baax Alaaji Kora Fall mu baax mi nga xam ne moom la ñuy jooy ba léegi noppee wuñu Kora mhm, mhm. euh, moom euh, xam naa ko bu baax parce que euh, presque mën naa ne marché laa doo ah. à l'âge de 12 ans ci laa nekk marché. waaw boo xool ñoo bokkoon rue. c'est vrai presque booy xool euh, li mu wax yëpp. Mhm. traversé woon nañ ko par rapport ak suñu jeunesse. Mhm. mais mu nekkoon koo xam tamit exemplaire ci dëkk. Mhm. parce dëkk dafa war a am ay nit ñu am valeur yooyu. c'est parce que dañ ne euh, boo nekkee ci dëkk. da nga dañu war a euh, nga nekk ñamu dëkk bi. maanaam kenn ku nekk ngay am njëriñ ci dëkk bi. moo am solo te ñun tamit ci loolu la ñuy dox dañ bëgg ne. lépp loo xam ne am na ci àddina bi. Mhm. wala nit di ko jëriñ ci dëkkam. Mhm. ñun suñu tëngéej gi loolu ñu ñu am ci njëriñ. Mhm. donc ci xalaat. ci mën-mën ci ay pexe. ci njub ci ay exemplaire wu jeunesse. donc loolu ci la ñuy dox guddi ci la ñuy dox bëccëg. donc loolu nag ku mel ni Kora Fall exemplaire la. ci li euh, mu traversé yëpp te wàññiwu ko dara. def na ba génn àddina. Mhm. Euh, ñëpp nawloo ko. Mhm. doon ànd ak tamit suñuy waajur. mu bàyyi fi wayu wayu bu baax tamit tabe. Mhm. <coughs> moo doon sonn tamit ci ay nit. sax mën nañu bu baax ci côté yooyu. te loolu moo am solo ci àddina àddina dangay am njëriñ. boo amoon njëriñ sa dund amoon njëriñ.